waaw yow nga fekkee jéey gi am tey fii ci hôpital bu Tivaouane est-ce que mën nga ñu si dikkaat. waaw mën naa la si dikkaatal si lu leer ndax lépp fi dama fekk euh, dama indi malade depuis dix huit baa ngi fii dafa damm mu indi malaat ñu koy traité bloc rajo ñu toog fii couloir bi jékki-jékki ñu gis ay daam yu daw di yuuxu di jaar na leen man ko lan la lu xew mun ma pédiatrie mooy tàkk pédiatrie baa ngi tàkk. comme man xawma pédiatrie bi man ko fan la mun ma fële si ginnaaw ma dem di daw di laajte ñu may wan yoon bi yéegal yéegal yéegal bi ma yéegee ndaxte c'est au deuxième avant ma yéeg nag bi may dem je me parce que dama récupéré waale benn instincteur bu mag laay récupéré waale bi ma ko récupéré dem vraiment jéem a fay lakk bi am na yeneen gars yu ma topp tamit yor ay instincteurs di fay jéem a maîtriser lakk-lakk bi mm. donc jéem nañ ko maîtriser mu wàññeeku bu baax nag bi sapeur bi ñëw fekk nañu affaire bi wàññeeku mais sapeur bi ñu ñëwee nag dañu arrêté lépp bi ñu ko arrêté man bi may fay xale yaa ngi si biir maa leen di gis nii mhm. mais munuma leen génne. état bu garaaw lañ nekkoon état bu garaaw lañ nekkoon. kon kon ah, ñàkkul ne am ñàkk seen bakkan. bëri na. est-ce que mën nañu xam lim bi à peu en tout cas ëpp na man li ma jot a gis moom war na ëpp quinze mhm. waaw. ñoom ñëpp dañu. parce que par lal da ngay gis lal boo xam ni par lal ay ñetti xale ñoo si nekk. lal ñetti xale. ay lal kii finalement bi sapeur ñëwee ba ñu maîtriser kii bi si lañu ñu wàccee xale yi yóbbu leen au premier dugal leen si benn salle foofu dañ leen muur dugal si benn salle waaw